auzu billahi min asaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ajmain bokki taalibe yi bokki jullit yi noo ngi dollee jégglu kàddu yi ñuy yëkkati ci kanam sëriñ bi te ndigal teg na ko noo ngi leen jottali ay kàddu yu bàyyikoo ci moom jëm ci mboolem njabootu seriñ Touba waaye jëm ci mboolem jullit yi muy kàddu yoo xam ni baaxoon na ko jottali saabu jamono lëjee wala ay xat-xat am mu yàgg ko jottali ngir xettali bindeef yi xettali taalibe yi dellu leen ci yàlla mu wax ni dafa bëgg nun ñëpp nu maase dellu ci yàlla tuub tuubal ko jégglu ko raxas sunuy xol ba mu set wicc jéggalante sunuy bàkkaar ci suñu diggante lu waaye man ci alalam nga dimbalee ko sa sa sam nawle suñ noppee nag li nga xam ni moom la moom la daan nag a jekk te jële ko ci sëriñ Touba muy def tawasul ci jàng alxuraan ak xasaayit ñu fàgg fasoo ko fas ko yéene def altine jiinu jëm te bala ñu ko def foofu ñu jaar nee nañ fi jaar raxas suñuy xol ba mu set wicc ànd ak yéen ju sell ak wóolu Serigne tubaa ak jébbalaat ko suñu bopp ak jaar fa nga xam ne fa la daan jaar buy jiñ wala mu ñoddi te moo di ñaari sàllam yooyu nga xam ni wax na ni ci lay ci lay ci lay jiñe ci lay ñoddee ndax moo ni daf ñi bi bii xidmatul aadil amin muy xasaa it rajo rajo naa minel mawla bii xayri matlabin wa fusnaa bii fi def defin fi jël bi muy alxuraan kon ñaari yooyu ci lay giñe ci lay ñoddee moo tax mu xiirtal ñu ñu fonk ko baax a baax a baax jàng ci jàng mu sell moo xam ne amul benn caaxaan bañ cee am defe ko defin woo xam ni mus musuñu musuñu ko def ci benn menn ni njàng ma dul mii waxtu waxtu wu diglee dafa dafa war a mel ni tey la tey tey la ko digle ñaari sàll yooyu nag boo gisee mu dina ci xittal moom sëriñ bi dafa xam nu sëriñ bi toll ci ñaari sàll yooyu buy alquran ak xasaayit ndax isaa aw xaraatu bari na ci xasaayit yi lool te jàpp nañ ni bu nee isaa katabtu bind tax bu xasaayit a tax bu nee aw xaraatu bind xasaayit a tax jàng xasaayit jàng alquran a tax kon ñaari sàll yooyu lam cay lam cay teg ku ne xam ne ni lu mu am ba noppi la isaa aw xaraatu jaa illa yama yu xaqiqu rajaa isa katabtu aw aw xaratu xarfa xustu mu nan tuudahu saakal xarfa isa katabtu aw xaratu harwala iblisu fawran mahaman taxawala yooyu mooy li nga xam ne kon moo tax mu xetal nu ci alxuraan ak xasaayit mu wax ni nag dafa bëgg buñ buñ buñ raxasee xol yi jàng ko nam nam nu ko digale nu bokk nu bokk nag fas jàmm ci réew mi jàmm ci lislaam bi jàmm ci àdduna bi ndax nee na loolu bu ñu ko defee te defee ne ko ni mu nu ko digalee ci sell ak ak woyof lépp luñ ci sàkku mën na mën nañ mën nañ koo am te loolu àdduna bi soxla na ko réew mi soxla na ko àdduna bi soxla na ko ñu bokk ñaanal kilifa yi kilifa yi diine yi bokk ñaanal julit yëpp bokk ñaanal taaliba yëpp suñu borom def jàmm ak salaam benn ay bañ bañete dugg ci ci réew mi bañete dugg ci ci ci àdduna bi buñ noppee nag moom ci boppam nu bokk ko teew ñaanal ko ba ci boppam ci xasaayit yi ak alxuraan ji ndax eh, moom sémb na sémb yoo xam ne sémbal ko Serigne Touba ñëpp gis nañ ni yi tijjim ci am te sémb yooyu su àggee mën na si naa wax ni suñ tax ak àdduna la ak àllaaxira te mooy lii mu sembal Serigne Touba kon nag moom itam bu dee ñu beral ko ñu beral ko wàllu boppam ñaan yàlla mi ngi xam dara tëwu ko ci barkab Serigne Touba mi muy liggéeyal sama borom yàggal ko fi wéral ko ba naalam yooyu yi nga xam ne moom la naalal Serigne Touba te te bëgg ko ànd ak moom yàlla suñu borom dimbali ko may ko kattan may ko wér defal ko jàmm ba mu àggale ko njàng mi nag bokkut ak njàng yi nañ ko defee rek lañ koy defee fu waay nekk ci biir ci biir réew mi moo xam jàkka la moo xam jumaa la moo xam daale kaamil la fu fi waay nekk na nga yem fo mën ngaa fa nga nekk nga jàng ko ku mën a ñëw ci pénc pénc bi nag baax na muy jumaa biir jumaay tubaa ak li wër jumaay tubaa ku fi mën a ñëw baax na waaye fu waay nekk ci biir réew mi ak bitim réew na nga xam ne bis boobu sëriñ bi def na ko muy bisub alxuraan alxuraan ak ak xasaayit te jublu ca ñaan ñaan yàlla ñaanal bindee fi ñaanal réew mi ñaanal lislaam bi loolu kàddu yooyu la sëriñ bi noon nañ ko jottali bu fekkee su ko defee ñi nga xam ne ñoo ñoo koy jàng fu waay mën a nekk te suñu borom may la kattan loo leen mën a dim jàppalee eh, ci ci ci ci luñ luñ jëfandikoo ci bëccëg bi foo ko mën foo ko mënee rek fu foo tollu nga indi ko foofa moo xam ci jàkka yi la moo xam ci jumaa yi la moo xam ci daara yi la biir jumaa ji itam waa Tuubaa ak li ko wër lépp fu fi waay mën a def ay tiranga indi ko ci ñi koy jàng yaa ngi koy jàng yéen a yem ku ko mënta jàng itam nga jàngalu nga jàngalu alxuraan jàngalu ay kaamil ko sëriñ bi diglee ak ak xasaayit euh, benn den ñi koy jàng neexal leen jox su ko defee yool bi ak si ci yow kàddu yooyu la suñ boo xam nañ ko wax li ci des sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Seex Abdu Latif dana ko jottali gën a leeral ndax buñ toogee fi sëriñ bi lan bëgg a waxee sunu sunu sunu sunu taalibe ak sunu su su sunu sunu woyeflu duñu ko may waaye sëñ bi daal li mu jublu mooy ñëpp xettali ko ñëpp am jàmm ñëpp tegu ci aw yoon tegu siraati mustaqim ñaari kàddu yi mu daan wax itam ñu fas ko yéene mooy sant yàlla ci sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom doon xéewale ak soññ suñu bopp ci jéem a jëfandikoo ay digalam bàyyi ay tereem loolu ñaari kàddu la yoo xam ni ñaari kàddu yu gàtt lañ mu wax ko waaye bu ñu ko toppee mën nañ ci jëlee lépp di sant nag ñi nga xam ne ñoo féer ci jumaa ji muy ma baa mu xadimatu xidma ñi nga xam ne ñu ci biir jumaa ji lañ ko ñu ci jàng ñoo toppatoo ñu ngi nii toog fekke nañ fekke nañ jotaay bi sëñ sëñ sëñ sëñ Basiiru moom moom sëñ moom sëñ Abibu moo jiite waa rabitul madaal alxuraan fii Touba ànd ko sëñ xaari jaxate ñoom ñoom itam naka jekk bu sëñ bi santaane rek seen seen lépp dañ koy bàyyi nekk ci njàgg bi sëriñ bi neen mi ngi leen di soññ kàddu yooyu la sëñ nañ ko jottali ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax di ñaan suñu borom mi nga xam dara tëwu ko yéen jim am ci bindeef yi am ko ci taalibe yi am ko ci jullit yi sama defal ko ci lu kawe njortam ci barke borom Touba ñu ngi koy sant di ko gërëm jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala